وبلغوه ورأوا نوره فاتبعوه صلى الله عليه وسلم أما بعد mbokk jullit ñi assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñu ngi leen di nuyu weeru koor ñëwatina weeru koor ñëwatina weeru koor ñëwatina almet yeewooti na aha weeru ñas taalatina réew mi almet ñas taalatina réew mi almet ñas tooñ na jullit ñi almet ñas tooñatina képp ku gëm sunna yonent bi sallallahu alayhi wa di ko topp almet ñas yàgg na tooñ almet ñas yàgg na wax Almet Niass yàgg na weddi mais étape par étape la doon def step by step fu mu ne nii nag léegi dañ ko teg pression il faut que mu accélérer le rythme il faut que mu accélérer pas bi sinon dañuy nangu xaalisam sinon affaire am dañ koy yàq gars yi teg nañ ko pression kon léegi foog mu yéeg paay xam nga su fekkoon dafa doon def par benn par benn xam nga atu njëkk yi day laal benn xadis fii wax fi benn affaire bu xawalant fii mais fii léegi fu mu ne nii puisque dañ ko teg choc teg ko pression léegi dafa brûler étape yépp yéeg ba si njombaxtal ba nag mu ngi waaj egg si njombaxtal bi parce que lii nii yoon la de li mu nekk di def nii yoon la nekkul loo xam ni euh, dafa jóg nii moom kase rek jóg di ko def walla di dof-doflu di waxantu ah ah dafa am projet bu nekk en route si liggéey la nekk moom mais que nag fu mu ne nii mu ngi jëm mag te teg nañ ko pression kon foog mu accélérer le pas moo tax fu mu ne nii léegi dafay yéeg si presque coll ba dem laali xola parce que objectif bi dugg si alxuraan alxuraan ji moom la gars yi di viser <laughs> te alxuraan xam nga kiñ ko jox kan la sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon soo buggee egg yéegaat si alxuraan foog nga jaaraat si sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga jaar si moom màbb ay. waxam màbb ay jëfam nga soo a yéeg nag ci alxuraan si bopp càmbar foofu commencé dugal foofu ay dut commencé dugal ay wax seytaane almanias fu mu ne nii yéeg na sa njombaxtal ba parce que fekk na sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu koy duut baaraam mhm. ndaxte kii mu duut baaraam muy muhammad ibn ismail al buxaari rahimahullahu buxaari mii mu duut baaraam du buxaari lay visé de ah ah Buxaari escalier la pour yéeg dem fekk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi escalier la pour yéeg dem jéem a màbbi alquran waaye mënuñu ko mënuñu ko ndaxte borom bi subhanahu wa taala moom moo wax ni inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu la xaafizuun yàlla nee na sunu borom moom moo wàccee alquran te moom mooy sàmm alquran waaye yàlla bi mu wàccee alquran dafa am wax yi mu wax si biir mhm. yàlla sunu borom jàngal nañu lu bari lu mu wax ci biir alquran alquran jooju daf si wax ak yenent bi dëgg la alxuraan ji aaya yaa ngi fi bind nañ ko def nañ ko ay kaamil ñu denc ko waaye alquran jooju yàlla daf koy sàmm te yàlla xam ngeen ni lépp lu muy def da koy wutal sabab sàmm boobu yàlla sunu borom di sàmm alquran ji mu ngi koy jaare ci sunna yenentam sallallahu alayhi wa sallam naam diggante yàlla ak yonent bi kenn mënu fa dugg sunu borom wax na ci suuratul xujuraat baada bismillahi arrahmani arrahim yaa ayuha alladina aamanuu laa tuqaddimuu bayna yaday illahi wa rasulihi wattaqu allaha inna allaha samiun alim yàlla nee na ee eh, yéen ñi wax ni gëm ngeen yàlla yaa ayuha alladina aamanu yéen ñi wax ni gëm ngeen yàlla laa tuqaddimu bayna yaday llahi wa rasulihi bu leen jéem a jéem bu leen jéem a jaamu yàlla te jaaroo leen si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam laa tuqaddimu de ah ah bu leen jéem mukk ne da ngeen di jaamu yàlla te jaaroo leen si yonent bi sallallahu alayhi wa lan mooy jaar si yonent bi jaar si ay waxam jaar si ay jëfam jaar si li mu saxal sallallahu alayhi wa sallam mhm. mu tegaat ci mu ne yaa ayuha alladina aamanu laa tarfacuu aswaatakum fawqa sawti nnabii sallallahu alayhi wa sallam mu tegaat ci mu ne yéen ñi gëm yàlla bu leen yëkkati seen kàddu mu jib de jëm jéem a féete kaw kàddu yonent bi déedéet sa wax bu mu jéem a dominer xadis yonent bi de sallallahu alayhi wa sallam wax yonent bi moo war a kaw de xadis mooy féete kaw wax keneen ku dul yàlla aha bu ko def mukk mukk mukk mukk mukk mukk mukk bu leen def ni ngeen di defante seen biir yéen mun ngeen def débat seen biir kii am raison si kaw kii yenent bi kenn mënut am raison si kawam bul def loolu de mukk te yenent bi yàlla moo ko ne si alquran kama arsalna fiikum rasulan minkum yatluu alaykum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukum alkitaaba walxikmata wa yuallimukum maa lam takunu taalamuun yàlla moo ni yonent bi moom moo jox yonent bi téere téere mooy lan kaamil bi alquran bi mu teg si mu ne alkitaaba mooy téere wal xikmata wal xikmata buñ ko doon firi si français xikma mu ne ko firee sagesse waaye boroom xam-xam yi di liggéey si tafsir dañoo ne xikma bii bi yàlla waxee kitaaba mu tegaat si xikma xikma boobu mooy sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom la ko yàlla joxaale de daf ko jox téere bi mooy kaamil bi joxaale ko sunna yàlla waxaat feneen mu ne laqad manna allahu ala almuminina id baata fihim rasulan min anfusihim yatluu alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaaba walxikma yàlla waxaat na ba tey ni yàlla de nàddin na ñan la nàddil jullit ñi kañ bi mu yónnee ci ñoom yenn ndawam lii muy sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndaw loo xam ne kat mu ngi jóge ci seen biir ah ngir mu ñëw lan defar leen sell seen bakken yi defar leen raxas sunu xol yi ba mu set wécc xamal ñu lan téere bi alquran alkitaaba yuallimuhumul kitaaba mu xamal leen téere bi alquran waxu yàlla ji wal xikmata ak xikmati mooy la mooy sunnaam moom sallallahu alayhi wa sunnaam boobu moom la ko borom bi jox pour mu xamul ñu ko tey encore yaa ngi dégg wax ji yamul foofu boo demee fee sunu borom waxaat na ko wa lawla fadlullahi alayka wa rahmatuhu la hamma taifatun minhum an yudilluuka wa ma yudilluuna illa anfusahum wa ma yadurruunaka min shay wa anzala allahu alayka lan alkitaaba walxikmata yàlla wàccee na si yow téere kitaab alxikmata kon lii ay ay ay yi ma tudd fii bokkuñu ba tey ay yu différent nga ñëwaat ba si saar bi ñu gën a jege fii ci suuratul jumuati bi sunu boroom waxee mu ne huwa alladi baasa fi lummiyina rasulan minhum yatlu alayhim ayaatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaaba walxikmata yonente bi sallallahu wa sallam day tarbiya nit ñi yuzakkihim daf ñuy tarbiya dafay tarbiya seen xol yi ba nga yor jikko ju baax mu mu jàng xamal la alquran ak sunnaam bi bi mu fiy teg nit ñi topp ko kon ce qui veut dire que jullit munoo doxal te sunna yenent bi sallallahu alayhi wa ñëwul te sunna yenent bi sallallahu alayhi wa munul ñëw te jëlee woo ko si ñi ko jëlee si moom jële bi jële-jële boobu noonu moo indi kat ni ñuy woowee chaine de transmission ci xadis xam-xamu xadis sanad naam yàlla wax na ci biir alquran mu wax ak julli ñi mu ne leen aqimu salaat taxawal leen julli waaye waxul kat naka lañ koy taxawalee waxul kat ban heure lañ koy taxawal yonent bi sallallahu alayhi wa moom mi yàlla jox al kitaaba kitaaba su duggee mooy lan aqimu salaata dugg na taxawal leen julli bi damay jël exemple taxawal leen julli ñëw na aqimu salaata dugg na de dëgg la lii alquran la ah mais léegi nag naka naka lañ koy defee foog xikma ñëw xikmata bi mooy sunna yonente bi sallallahu alayhi wasallam lan la yonente bi wax sallallahu alayhi wasallam si lu jëm si julli mu ne sallu kama raaytumuni usalli julli leen ni ngeen may gisee may julli loolu lu muy firi képp ku gëmul sunna yenent bi kon bàyyil julli parce que munoo julli te jëfandikoo sunna yenent bi sallallahu alayhi wa naam du yàlla wax ne aqimu salaata wa atu zakat yàlla ne nañu génnee asaka asaka bi ne lañ koy génnee ah, foog yonent bi ñëw taxaw de sallallahu moom moo lay wax nangam boo ko amee nangam génne nangam bu amee nangam moo si génn lii bu amee lii moo si génn sallallahu alayhi wa sallam kon sunnaam kenn mënul dem te ñëwul naam parce que justement moom wax na ni moom yonente wax na ni ala utitul kitaaba wa mithlahu maahu nee na moom yàlla jox na ko wàcceeti moom alquran ak lu toll ni alquran ànd ak moom parce que loolu noonu peer la gis nga peer la xam nga peer xam nga peer xam ñaari tànku da xam nga ñaari dàll carax mënoo jël bi bàyyi bee dëgg la du dëgg la loolu ñu woowee peer yonent bi nee na yàlla jox na ko alquran bi ak lu mel ni alquran ànd ak alquran ji parce que loolu justement mooy firi alquran ji parce que alquran ji dafa tënku buñ ko bàyyee noonu bu ko yonent bi firiwul kenn du ko dégg kenn kenn kenn kenn kenn hmm. ndaxte yàllaa ko ni si biir alquran wa anzalna alayka dhikra li tubayyana linnaasi ma nuzila ilayhim yàlla nee na ko wàccee nañ ci yow alquran ji si kër si pour nga leeralal nit ñi li ñu wàccee ci ñoom loolu mooy alquran bu yonent bi duggul kenn mënu ko dégg te yonent bi ni muy duggee kat sunnaam la de bu ñu jëlee exemple ñun ñi fi nekk tey est-ce que am na si ñun ñuy toog ak yonent bi di ko gis muy jëf wala di ko gis muy wax amul de kon boog sunnaam si fi nekk mooy jëmm yonent bi sallallahu alayhi wa sallam naam aha kay sunnaam si nekk fii mooy jëmmam ji sallallahu alayhi wa moo tax it kenn mënta jëf kenn kenn kenn kenn kenn mënta jëf te indiwoo sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam imaam Saxaawi moom fi mu si egg sax dafa sori moom dafa ni <laughs> xam-xamu xadis mooy jëmm yonent bi sallallahu alayhi wa kon kenn mënta dem te dugaloo xam-xamu xadis xam-xamu xadis boobu nag mi nga xam ne moom mooy tax l'islam bi mën a continuer moom mooy tax l'islam bi mën a dox sans moom l'islam du dem sans moom l'islam du dox moom la almet ñas bëgg a taal téere yooyu la bëgg a taal te bu ko taalee mooy tàll sunna yonent bi sallallahu alayhi wa te du moom kese de si àdduna bi dañoo lëmbe àdduna bi fu mu ne nii ñii moom dafa bokk si benn groupe boo xam ne ñu ngi liggéey ci àdduna bi mooy lan xeex sunna yenent bi pour ja daf ko escalier yéeg dem xeexi alquran si lañ nekk di liggéey moom nag fu mu ne nii dafa ñamale affaire am dafa rëb moo tax foofu mu génn mu zëmbale lépp bëgg a taal taalandoo yëpp benn yoon. ci li nga xam ne man commencé naa di ko wax depuis juróom-ñaari at ci ci média yëpp mën ngeen ko génnewaat fi ma ko doon waxee te jamono yi ban fekk ma ci. moom nag di buur màkk di borom doole di di di àtte di dindi àtte di wekk àtte te man dama waxoon ne mbooleem addis yu bari yépp ay fen la génn nañ fi juróom benn téeméeri junne addis ci ki nga xam ne mooy doon albani muy benn horloger ba dëkkoon albani jàngul sax waaye euh, propagande doon ba yóbbu yóbbu ko moom it mu doon ci amee dara te fii ñi nga xam ne tey ñooy waxaabi yi te mooy ñi contre Cheikh Tidiane contre Sëñ Touba tontu contre El Hadj Abdoulaye Niass ki doom contre El Hadj contre ñeneen ci réew mi te dara taxul ñu contre leen lu muy xaalis bu ñu leen di jox li gaayoo pétrole dollar dama ne loolu moo doon seen seen fonds de commerce te daanu na dama leen di wax nag ñaari yëf rek doy na Buxaari Euh, bi mu commencé bind ay hadis ci wax yu wax ne yonent bi moo ko def boobu ñu ngi troisième siècle gannaaw yonent bi dugg nañ ci ñetti téeméeri at lu jege ñetti téeméeri at bu fi yonent bi jóge muy benn waaw yow depuis ñetti téeméeri at lu ko jege maanaam ci siècle bi lu jege ñetti téeméeri at yow gisoo yonent bi gisoo ku ko gis gisoo ko gis kooka gisoo benn téere boo xam ne mën nga cee baase nga xëy rek sëgg di bind di wax ci yonent bi benn man yéen laay wax borom xel ngeen te yàlla borom mi xel lay waxal ñaareel ba fekk yonent ci waxam tere ku ku bind waxam ci dundam ay yoonu yoon nee na bu leen bind bu leen bind nem li ma wax ndax day jooyoo ak damay bañ mu jooyoo ak wax yàlla ñu jooyal sama wax ci kaw wax yàlla walla mu mu mu nekk loo xam ne sax xëy na am na ñu ko mën a déggee noo xam ne sax dafay contre li ne ci téere yàlla bi bind leen waxi yàlla bi te bu leen bind waxi Muhammad xanaa kon mbindam Buxaari ñàkk teggin la ci Muhammad Muhammad bi nga xam ne kenn mës a ñemee bind indil ko ne ko lii yaa ko wax ba mu jógee fi ba am ba dugg ci ñettee ñetteelu siècle ñu ne léegi moo lii moo ko wax loolu d'abord euh, euh, euh, loolu d'abord weddi yonent bi la ñi numéro deux mooy Buxaari moomu ci liñ bind ci téere bi bi muy bind téere boobu fukki at ak juróom la am boobu mineur la gisagul baax ab góor alors Almet ñas nit koo xam ni tey xëy na am nga soixante dix ans yu jàll yaa ngi toog di wax loo xam ni du dëgg ñu ngi ci weeru koor fen baaxul yonent bi nee na jullit mën na def lu nekk ba mu des fen te yàlla nee na ci biir alquran laanatullahi ala alkaadibin yàlla rëbb na képp kuy fen ndaxte fen mooy jëmmi weddi yàlla mhm. fen mooy jëmmi yàlla ak képp ku ko mën a def li mu wax fii ay fen la nee na wooy yenent bi dafa tere woon ku bind ay xadis ay maan ay waxam ci dundam naam mës na am waaye est-ce que foofu la yam déedéet yenent bi aha moom moo waxoon laa taktubu anni xayral quraan wala boog si wal quraani mu ne fa man kataba anni xayra al quraani fal yamxuhu mu ne buleen leen bind jële si man lu dul alquraan képp ku bind jële si man lu dul alquraan na ko effacé na am wax jooju mus na am kay waaye si biir xam-xamu xadis dafa am lu ñuy woowee naasix ak man suux yaa ngi dégg wax ji naasix mooy luy man mansuux mooy li ñu abrogé comme si alquran ni muy amee aaya yoo xam ni dañ ko abrogé am yeneen aaya par exemple moo ko ñëw abrogé ko wax boobu yonent bi waxoon sallallahu alayhi wa moom si boppam sallallahu alayhi wa sallam moo joxewaat ndigal pour ñu wax jooju dañ naka am na benn saxaaba bu tudd abdullahi ibnu amr ibnu al aas abdullahi ibnu amr ibnu al aas saxaaba la papam saxaaba la ridwanillahi alayhima moom dafa doon bind dafa doon bind arab di bind suryaaniya bi muy bind ay wax yonent bi di ko dajale moom abdullah ibn amr ibn al as waa Quraysh gis ko ne ko yow dangay ngay jël ay wax yonent bi di ko bind te yonent bi day wax ci kontante di wax ci mer noo mën a jëlee waxam di di ko bind xëy na ñoom ñi ko doon wax loolu jàpp nañ ni que wax yi muy wax si mere kontante war a ko si dugal a ah que ndey mbili gi mu ngi fi yonent bi sallallahu alayhi mu ngi doon dund mu ngi seen biir moom mu am fulla ak fayda jóg waaxu dem fekk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne yonent bi moom de dama doon bind say wax waa Quraysh gis ma ne ma lu tax ma bind say wax te yow dangay wax si mer di wax si kontante mhm. mu ne léegi nag dama la doon laaj ndax sa wax yi mun naa continuer di ko bindam déet yenent bi ne ko uktub bindal uktub nag forme phrase bi impératif la ci arab uktub moom la ñuy waxee fi'lul amr daf ko jox ordre ne ko bindal uktub mu teg ci waat yenent bi sallallahu alayhi wa sallam teg ci waat mu ne ko walladi nafsi bi yadihi <laughs> laa yambaxi li an aqula illa al xaq yonent bi ne ko yàllul ci man ma wax lu dul dëgg lépp lu yonent bi ko ne lépp lu géddi sama gémmiñ gi dëgg la bindal sallallahu alayhi wa naam aha kay beneen firnde bu ñu wane ni ko yonent bi joxe na ndigal pour ñu bind mooy fan xajjatul wida mooy aj aji màkk bi yonent bi mujje aji màkk nga xam ni mbooloo bi fa nekk yàlla rek xam ñu toll boobu moom xam nga ni ñuy woowee xadis mutawaatir boo xam ni mun nañu wax ku ñëpp tufli nga tooy xadis boobu mun nañ ko tuddee noonu parce que xadis boobu fu fu mu amee fu mu xewee mooy yonent bi mu ngi taxaw di xutba si si bi maanaam xaj aj bu mujj aj bu mujj aj nga xam ni lislaam boobu sotteeku na nit ñi dugg nañu si lislaam ba fees dell aj bi ñëpp a ngi toog di déglu nit ku tudd nit ku jóge yaman tudd abu shah abu shah la tudd kooku bu mu dégloo yonent bi moo jug taxaw mu ne yenent bi sallallahu alayhi wasallam li nga wax ni rafet na bari na am na solo lool waaye sama xel mi mënta jàpp yëpp dama bëgg ñu bindal ma si kanamu ñëpp si kanamu nit ñi toog yëpp yëpp yonent bi tontu sallallahu alayhi mu ni leen bu li abi bindal leen abi shah mii si kanamu yëpp gaa yi jóg jëfe ndigal yonent bi sallallahu alayhi ñu bindal kan aba shah ah ñu bindal ko kon yonent bi joxewaat na ndigal pour ñu bindal ko ñu jëlaat beneen seede encore bu wane ni que yonent bi sallallahu alayhi wa ndigal si bind mooy saxaaba boo xam ni moom képp kuy déglu tuuti si xadis wala sax même ku déglul xadis sax l'islam bi yaakaaruma ndax jullit mën na si nekk te du déglu turam mooy kan abu hurayra radiyallahu taala anhu abu hurayra moom siiwe na si koo xam ni daanaka moo ëpp lu mu solo xadis si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom abu hurayra nee na ma min ashaabi nabi sallallahu alayhi wa sallam ahadun aktharu xadisan anhum minni illa ma kaana min abdillahi ibni amr ibni al aas fa innahu kaana yaktubu wala aktubu mu ne mu ne man wala aktubu moom dafa ni si saxaaba yonent bi yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp ni ñu toll amul kenn kenn kenn kenn ku ko ëppale xadis ku dul Abdullahi ibnul Amr ibnul Aas mu ne Abdullahi ibn Amr ibnul Aas kooku dong moo ko ëppale lu tax lu tax mais yow Abu Hurayra lu tax kooku moo la ëppale mu ne parce que kooku dafa doon bind te man daaw ma bind bon lii xëy na nit mën na wax mais wuy peut-être Abu Hurayra bu muy wax loolu euh, peut-être peut-être aussi début islam la nekkoon euh, après yonent bi tere ko déedéet Abu Hurayra ñeenti at dong la def ak yonent bi yonent bi faatu kon Abu Hurayra si jeexitu dund yonent bi la doon ànd ak yonent bi kon Abu Hurayra loolu mu seede noonu si jeexitu dund yenent bi la ce qui loolu mooy wane ni ko kon ndekete yonent bi si jeexitu dundam daan na bàyyi ñuy bind joxe woon na ndigal ñuy bind déjà leeral bi il fallait que ñu indi ko pour wane ni que Ahmed Niass dafay fen si li mu wax ci affaire bind xadis wala bañu bind xadis te it Ahmed Niass fenaat na beneen fen mu ne Buxaari bi mu amee fukki at ak juróom fukki ak juróom la commencé bind téere bi Ahmed ñas dafay fenati loolu moo wane ni que moom nu laar la jàngul histoire diine gi xamul histoire Bukhari Bukhari boo jàngoon histoire am da ngay xam ni bi mu amee fukki at ak juróom benn la dem aji màkka ànd ak magam bu tudd Ahmad ibn Ismail ak moom moomu ak seen yaay ñu dem aji màkka waaye bi mu amee fukki at ak juróom bindul saxiix bi loolu du dëgg de ay fen la am na beneen téere nag bu mu bind bu siiw tamit bu ñu xam bu tudd taarix taarixul kabir téere boobu téere boobu daanaka mu ngi si indi xam-xam boo xam ni moom la ñuy xamee nit ñi solo xadis yi si ngay jaare xam kii solo xadis bi est-ce que nit ku wér la wala wérul est-ce que kii dañuy solo moom xadisam déet kon c'est-à-dire balaa muy sóobu si bind saxiix bi saxiix Buxaari bi balaa mu ci sóobu dafa njëkk bind taarix pour pour xamle ñan ñooy ñii di soloo xadis yi te te téere boobu nee na bi mu koy bind kat mu ngi ko def si wetu xabru yonent bi sallallahu alayhi wasallam pour barkeeloo xabru yonent bi leeru yonent bi sallallahu alayhi kon su waxee ni ko Buxaari fukki ak juróom la bind téere bi kon boobu xàmmeegul dara dugg na fi génn fii day kàcc li ay fen la noonu foog tamit ñu wax appeler un chat par un chat munoo wax wax jéem ko rafetal dugg na fii génn fii foo nga wax li am dafay fen d'accord kon Buxaari téereem bi xëy na kay li mu jaawale mooy fukki at ak juróom benn topp na ko moom Buxaari di wëndeelu ci àdduna bi pour bind téereem bi lii mooy li am fukki at ak juróom benn Buxaari wër na ko ci àdduna bi di wëndeelu di topp jeexitu yonent bi sallallahu alayhi wa pour bind téereem bii di saxiixul Buxaari Almet Niass kon bu waxee ni Buxaari boobu mu ngi toog mu ngi topp mu mu maanaam mu ngi mu ngi mu ngi mu ngi am fukki at ak juróom si la bind téereem bi amul du dëgg te loolu dinañ ci ñëw si kanam si wa si histoire Buxaari dañ ci def benn résumé